Euh, rapport. pour rapport. waaw waaw waaw ah. xam nga voilà d' xam nga rapport rek mënoo ci jël nit rek daal ni da nga koy da nga koy da nga koy incriminer ndax nag aussi présomption d'innocence am na xëy na caxumaan an c'est vrai que coow lu bari topp na ko mais rapport OFNAC boobu euh, ni ko Nafi Ngom Keïta defee ak wax ji ci amoon yëpp aussi xam nga fekk nañ ko gis nañ ko mais. Euh, Cheikh Omar Anne maanaam Cheikh Yerim Seck. waaw xam nga. moom ci waxam def na conférence de presse contesté daal ni rapport bi moom gisu ko dañu toog ba ci yàgg mu gis ko sur la place publique kenn waxu ko dara et cetera et cetera et cetera bref euh, c'est vrai que rapport bi moom épinglé na ko. tu comprends parce que boo liiree rapport bi am na lu bari loo xam nañ ko ci reproché mais xam nga boo rapport quelle que soit l'institution muy cour des comptes muy OFNAC et cetera bu fekkee ni demul justice ba justice leeral ko kenn mënul jàpp ni kin épinglé moo def c'est ça la réalité comme li ma waxoon rek ci Mame Mbaye xam nga rapport de l'inspection générale des finances. Mais ba dëggee sax moom mu démissionné daf ni woon dama mettre à l'aise le président de la république pour me demander dem justice pour expliquer wu. parce que faaw loolu amul tuuma rek lay doon mais tuuma boo xam est-ce que établi ou pas. rapport OFNAC pour dans doole fop rapport inspection euh, des finances. je suis d'accord avec toi. surtout ko njiitu réew mi dafa faire non na OFNAC pour nous. Ah. non je suis parfaitement d'accord avec toi. mais problème bi mooy xam nga rapport OFNAC boo xam ne amul benn suite judiciaire kenn joxu ko procureur kenn àttewu ko ci moom ci boppam wax na ni rapport boobu mosu koo gis maanaam amul principe du contradictoire kenn jox ko ko pour mu tontu dafa nga am koy te moo xëy suba rek def conférence de presse di wax ci rapport bi moo aussi ku rek dañ koo tuuma rek mu wax waxam bon li ëpp solo man ci li ma jàngat ci nomination mooy xëy na résultat bi mu def Podor xam nga plus de cent mille voix d'écart lu bari la joué ci. élection Macky Sall deuxièmement euh, c'est un Anne qui apparaître peut-être pour un politicien tout court mais enseignement supérieur moom ci la parce que mhm. bon professeur d'université là, ingénieur là, chercheur là, tu comprends c'est aussi que nous avons fait. bari xamuñu ko mais en tout cas les ëpp solo gouvernement bi comme le gouvernement politique là, c'est-à-dire ñi nga que ñoo gagné sen fief nous avons contribué à ñoo a contribuer ci victoire Macky Sall nous avons gouvernement man loolu moom moom la bi may dugg fi moom la leen doon wax comme premier jàngat bi ma jàngat. ci ci wàllu dañu taxaw tuuti ci wàllu politique boobee gouvernement politique la donte sax am na ay ñi nga xamante ay techniciens lañ.